waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi ziare ñëpp man la bëgg bàyyi bañkat waaw dama ñëw rek pour def benn vidéo bu ndaw rek pour ñu bàyyi ci xel ci problème mu Ousmane Sonko ak Casamance. gars yi <clears throat> yeewu leen ndax yeewu dafa jot bu leen nangu ñu leen di manipuler parce que ay manipulateurs lañ yàgg naa ko wax ci samay vidéo depuis ba ma quitté Pastef ba léegi parce que dama leen xam parce que seen biir laa nekkoon. kon lu ma la ci wax yow jeunesse bi nga xam ne am nga xel di xalaat war nga ma mën a gëm lu tax ma wax loolu Ousmane Sonko dem na Casamance ñoom ñu programmé seeni i manipulation yu ñu war a def biir Casamance ñu taxaw ci kaw pëjam bi Ousmane Sonko di tànde daanu crise luñ togg la avant muy dem moom laa loon dénoncé ci sama live bi nga xam ne moo passé dimanche bii passé bañ xamee ne maa ngi koy dénoncé dañoo attaqué sama page Facebook signalé ko ak doole. Facebook tëj sama page jël sama page jël vidéo bi téye ko ñoom Facebook vidéo boobu génnoon mais su bi génnoon da ngeen dem ngeen seetaan ngeen gis li ma dénoncé foofu noonu mooy lii am tey loolu tax ñu ñu signalé sama page. ma leen di bàyyiloo xel na leen Ousmane Sonko manipulateur la victime victimation lay def day victimiser wu di manipuler ci xelu nit ñi parce que xam na lu ko war a xaar suba Ousmane Sonko am na lu koy xaar ëllëg. loolu la xam moo tax muy dox jeu yi muy dox yëpp parce que dem leen ngeen seetaan vidéo bi nga xam ne fa la Ousmane Sonko di daanu daanu loo dërëm jotu ko complot la parce que gardien yi ñi nga xam ne yéen su ngeen xamee Ousmane Sonko fépp fu mu mës a taxaw am na ñaari gardien yu koy séq ñaari agence sécurité yu koy séq mais ba ñu nasee affaire bi ba mu war a am dañoo jël agence sécurité yóbbu leen fu la ñu taxaw Ousmane Sonko jékki-jékki di daanu su ngeen demeete ci vidéo yi da ngeen gis ne signalé nañ agence sécurité yi na leen Ousmane Sonko mu ngi daanu mais ki yor chef de sécurité bi dafa wax yeneen éléments yi na leen bu leen dem taxaw leen bu leen dem bu leen dem nan nga mën a yoree say sa nit nga koy garder sa VIP nga koy garder mu tànde crise di daanu ñi signalé la ko nga ne doo dem parce que complot la boo xam ne dañ koo def pour pour sénégalais yi naan non euh, Ousmane Sonko dañ koo drogué Ousmane Sonko dañ koo kii ay manipulation ñoom ci coow yooyu lañ bëgg nekk di dox ci maaynu sénégalais yi bëgg a xëccloo parce que def nañ ko mu jàll ñu def ko mu jàll ci loolu la ñuy continuer def te loolu lañ bëgg mu fal leen muy manipulation ci ay fen ay sos ay ay victimiser wu yooyu la Ousmane Sonko di tànte moo tax ma ne leen yeewu leen foog jeunes yi yeewu am na loo xam ne waruñ cee fal ab président Ousmane Sonko ku ko ku deful attention ci moom dana taal Sénégal parce que yii muy def nii foofu la bëgg sukkandiku pour dëgg ci pour boyal suñu réew waaye du jàll en tant que jeunes yu mel ni bëgg bàyyi ñu ngi fi di sensibiliser jeunesse bi di leen leeral di leen wax na leen moytu leen def leen attention parce que lii yëpp ay manipulation la lépp ay manipulation la dërëm jotu ko problème mu góor jigéen bi nag gis nañ ko fa mu toog ci biir tànt bi toog ci biir tànt bi nee na dafa ñëw pour féete marche bi nga xam ne moom la ñuy def pour góor jigéen ñi dañ fi war a jugee ko dugg na fi génn fi d' nañ ñun ñëpp dañoo contre góor jigéen kenn bëggul Sénégal nekk réewu góor jigéen benn waaye nag ñun mooy ñoo d' accord ñu indi la pétition bi nga xam ne nii jox la ko na la signer signer pour bu fi góor jigéen am yow Ousmane Sonko nga ne doo signer ba pare bëgg a dem ci wooteeb góor jigéen na da ngay xeex góor jigéen kanaa loolu mooy rof bopp rocc làmmiñ wala loolu yow lay yàlla di wax ci alxuraan na naafiq yi dañuy gëm-gëm lu dara te gëmuñu ko parce que su fekkee da nga bañoo yow yow bañ nga na doo ko signé ba pare nga ne da ngay dem ci marché bi xam nga man ñii ñoom nee nañ duñ signé waaye demuñ ci marché góor jigéen ñooñu mën nañ leen comprendre parce que ñoom dañoo bañ mais yow nga ne doo signé ba pare su ñu wootee marché góor jigéen nga ne da ngay dem sa ku naafiq ga parce que li ngay wootee gëmoo ko li ngay wootee gëmoo ko yeewu leen. sa waaye day dox ci maanu sénégalais yi nax leen ak naxante mais Pastef li ci biir duñ ko leeral mukk sénégalais yi fi mu nii man bëgg bàyyi mii di wax nii dañ may diaboliser li may wax duñ ci tontu de xam nga ci lan la ñuy dem ak man ay moo fi waxoon lii ak ay photom baa ngi nii ak dafa ñaaw ak nii la mel ak ay saaga ak sos ak yooyu noonu yooyu débat yooyu rek la ñuy ñëw ak man barke alxuraani karim duñ dellu ginnaaw ci di dénoncer. manipulation yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di def ak manipulation yi waa Pastef di def di di dox ci xelu jeunesse sénégalais bi nga xam ne nii tey ñoom ñooy yaakaaru Sénégal ñu bëgg leen sacrifice di leen rey ci yoo xam ne jaru ko man bëgg bàyyi danaa ci dëgg sama tànk continuer di ko leeral te su ngeen continuer di signaler sama Facebook su ngeen ko tëjee danaa ubbi waat yeneen Facebook continuer combat bi billaahi du ma leen wàcc barke rasulullah lépp dana leer parce que ay soskat ngeen ay tappalekat ngeen gëmu leen Sénégal bëggu leen Sénégal taal Sénégal moo leen tax a jug mais Sénégal du ngeen ko taal mukk te ñu nekk fi billaahi wallaahi tallaay salaamaaleykum wa rahmatullah wan loof man la bëgg bàyyi bañkat xeex rek ngir Sénégal gëm Sénégal dëgg suñu tànk ci Sénégal Sénégal moo ñu jaral lépp loo gis si àdduna wan